ko olof tuddee olof su ne nopp ma ne nopp mu ne bëñ ma ne bëñ mu ne koy ma ne koy ñu ne waddu lii laa mënul comprendre quand man bonuma créé wu ma fi moo bu nit ñi xamul ñàkkuma yar yabaatewu ma mais olof la donc beneen bi mu ne euh, I am safe man maa ngi ci kaaraange maa ci mbëggeel parce que yàlla ci mbëggeel la ñu bëgg I am wér naa mhm. maanaam bañ gi nga may bañ di ma jéppi naan ma sa ñaawaay sa kanam ni dëxin bu fanaan imbécile nga loolu man mu may jur méttit li ma ci neex ba mu faj ma mooy yàlla bëgg na ma sa bopp bu rëy <laughs> yaa ngi léegi li tax loolu yëpp di ma saafara mooy ne yàlla bëgg na ma parce que ci mbëggeel la ñu bind te bu dee xamoo may kan moom xam na ma ba bàyyi ma ci suufam si te soo ma xeexee ba ma dee ci suufam si laa nekk man mënuma rëcc yàlla donc looloo tax dama la dama la dégg dama la dégg ci say kàddu nga ne bi nga ñëwee Sénégal da nga poñe réew mi si waaw dañ la wax non dama ko dund yéeg ko parce que dama xam sénégalais yi dama laqatu ci ginnaaw di leen study di jàng sénégalais Sénégal ak sénégalais lay jàng. kan mooy mooy kii def lu bon tey wax lu baax. kii def lu bon. tey wax lu baax. maanaam nit ku foo daal. waaw mooy koo xam ne lu ko naxari baaxul lu ko neex baax na ku ko neex daa baax ku ko naxari da ngaa bon sénégalais mooy li mu bëgg ñëpp ko war a bëgg ndoor ak moom sénégalais mooy ki nga xam ne mën na wax ne dafa ormal yàlla te yàlla jaralu ko naafila sénégalais mooy kuy bàkkoo dina ba soo ko ne doo jullit du mer mais jaralut doomam mu yóbbu ko alxuraan day tardé foog mu jàng français am diplôme liggéey mën koo tekki sénégalais mooy koo xam ne même waay jur sax bëggul ko da koy utiliser soo waxee mu ne man su ma yaay ñaanal na ma ba dee mais tu es fier ñaanal na la mais blessé woo ko sa yaay dee na koo koy sénégalais. kon sénégalais dafa faux. très faux li lay wan ne baaxuñu mooy xeet wi gën a bon mooy. yow cest à bi nga maa ngi ñëw tey. yahud ñoo gën a bon moo tax ñoo ëpp yonantu sénégalais ñoo gën a yées moo tax ñu bari wàlliw xam nga ne Limaamu Laay doy na àddina mhm. mais mu ngi Sénégal mhm. sëñ Touba doy àddina maam Thierno Ibrahima Cheikh Ibrahima Fall ñëpp wàcc nañ Sénégal juste pour defar jikko yi mhm. nga ñëw ci maam xalifa maam Alaaji Abdoulaye Baye Niass Maodo Serigne Babacar Alaaji Abdoulaye Sy Dabakh wàlliw yi da nga leen di lim ba suba mais lan moo changé tey la jigéen ñi gën a bëgg a tëdd ak jigéen góor ñi bëgg a tëdd ak góor njaalo bi moom moom moom doonatul tab moom da ngay ci ñaata daanu nga daanu waaye tabu amatul jigéen boo fi gis mu tey ba tas na ko ñaata doom nga ci am comprendre nguur gi askan waa ngi jooy ne corruption dafa bari ci kaw xaalis su Covid dégg nga nit ñi feebar bañ tëj leen ñu dajaloo yow mi jàngoon bañ fal la nga lekk xaalis ba rapport war caa génn. Mm-hmm. mais gis nga tey ne justice bi nit ñi wóoluwuñ ko. baax na wala baaxul si autre chose wóoluwuñ ko mais man Cheikh Ahmed Cissé ma ne. Mm. justice su Sénégal deful dëgg ci man. deful dëgg ci yow man waa te ñoom xam ne li nga jotoo dundoo waaw ñoom xam ne den ma agressé dóor ma menace à mort filmé yónni ma porte plainte deux ans mënuñoo jàpp nii ñi ma ne neen séddale protection yi ñu tëj ma ñetti weer nañ séddale. protect ci jumaa yi ñu tëj ma ñetti weer donc su ma wax ji ñaaw na. mais loolu nag c'était c'était trop dur quoi. mais lan moo ko mais mais buñ ko buñ ko séddalee ñan lañ koy jox. xam nga tamit. no xaar ndax loolu ndax loolu danga nga koy tollaleeg bugg rey doomu aadama da ngay tollale propos ci juma man maa gën a juma. ma gën a foor jumaa te ci dëkk toilet moo gën a importance jumaa maanaam bu ñu tabaxoon dëkk defar douche moo ëpp solo ñu tabax jumaa foog ñu comprendre que yàlla moo ñu defal suuf si yëpp jumaa la ci ñun. Mhm. mais tey propos ci jumaa muy mu am yéene pour ñu rey ma ba ma tëdd ci kaso mais su ma jëmm ji nga xam ne ku ma rey rey nga ñëpp moom ñu dóor ma moom ba léegi nguur gaa ngi seet c'est pas normal mais tey. en propos de seddale protect ci jumaa yi. ñu ngi koy séddale ci armée yi mais armée du waaw xëy na xëy na bokk euh, ni nga ni nga c'est-à-dire c'est-à-dire xëy na ni nga message bi nga bëggoon nit ñi am ko amuñu ko réellement lan nga bëggoon wax mu tax mënoo ko wax ci phrase bu normal dineen ko dégg phrase bi sax normal na de waaye xam nga mooy li ma la wax ci sénégalais rek tey ñi doon mer yëpp naan jumaa yi jumaa yi laaj leen kañ leen gëj juma te normalement góor gu majeur cinq fois war nga ko dugg ci jumaa julli mais laaj leen honnêtement par jour cinq fois la ñuy julli góor jigéen semaine bi benn yoon wala at bi ñaari yoon. bu fekkee màggatul. mais laaj leen ñoom ñu doon commentaire yëpp ne normal kañ leen gëj juma. d'accord léegi dafa am fu ma fu ma bëgg ñu taxaw parce que benn phénomène la bu nga xamante ni dañ koo gis ci société bi Issa euh, muy wàllum euh, lesbienne ak li nga xamante ni Issa mooy ki ma oh, jàkkaarloo voilà Euh. Euh. <laughs> alors euh, muy wàllum lesbienne ak li nga xamante ni moo di wàllum homosexuel uh-huh. yow mi nga xamante ni nee nga sexologue nga sa xam-xam uh-huh. dafa màcc ci wàllu wi lan moo tax léegi mbirum góor jigéen yi mbirum borom ñaari tur yi gën a am doole Sénégal foo xam nga tey da nekk jigéen nopp góor mu foo ak yow donc boo réeree rek da ngay ndobanteeg jigéen parce que foofu mbëggeel bu naturel moo fay am beneen bi mooy euh, mbon phénomène la ci àdduna waaye foog naa ne lu jigéen neex neex góor a ko dax neex sérieusement parce que man seetaan naa film lesbienne yi parce que dafa ma defoon kump ma bëgg a xam ñoom nu ñuy defee mais ni ma gis ñuy defee coono ga ca ne góor a ko dax parce que da jël sa làmmiñ ubbi tànk nit ki ok, okay. doon expliqué dama ko seetaan am nga. yow da seetaan porno. si man man su basé porno laay gën a seetaan dama ko bëgg. <laughs> te te porno moo gën a dox ci ci city ah. non mais man moom damay seetaan porno. kañ nga seetaan. tey si suba <laughs> tey suba. maanaam su ma deelu routine la bokk seetaan porno. Aïcha ak ñi ci ruq bi ñooy dee hôtel baa ngi wàcc. fi mu ne nii parce que dañu xam li may wax ñu ko xamul <laughs> ñoom ñii mais ñoom ñii benn yoon. ñoom yëpp dañ ko seetaan non mais nit mënu wax damay seetaan porno rek nga ree te xamoo luy porno war a seetaan. am soxna ku bëgg a mën football da seetaan football kat ku bëgg a daayira seetaan daayira ku bëgg a gàmmu seetaan gàmmukat yi. sexologue la sexologue la mais foog ma seetaan suñ la defee position bi dóor yi yuuxu yi ma mun a comprendre bu laajee essayé nga essayé mais ci kan ko war a essayé. mais man man damay seetaan porno. d'accord franchement. d'accord léegi nag dama seetaan lesbiennes yi mais nañuy dërëj dërëjee seen bopp non góor a ko gën a yomb góor a ko dàq ne ubbi sa boromi tànk jigéen jël sa làmmeñ muy ngeew ngeew soo paree ngeen dërë jànd seen kilitros yi nekk ci ngi ngi non ba sawlal bi jigéen daal lu mu neex nee góor ko daax donc pour man li tax mu mu bari mooy euh, euh, mbon moo xew mais boo ko seetee ci biir lu neex ci góor ak góor moo tax rapport yi pousse pousse leen ko tuddee ñoom et looloo vénéno bi mais man nangu naa sa jigéen a jigéen mais góor ak góor moom mënuma koo nangu dafa xaram ñaar yëpp a xaraam yëpp a bon mais. ñaar yëpp a xaraam ma leen seetaanee quoi. aujourd'hui mais su ma seetaanee góor su ma yaram aujourd'hui moi je pense que yow en tant que. comme que nee nga bàyyi ma sexologue bi. indi <laughs> loo ma diplôme diplôme bu ma wax sexologue. en tant que éducateur. Mhm. comme que nee nga da pour éduquer moi je pense que aujourd'hui mais mais léegi tout pour éduquer parce que kaso gi wóorul <laughs> da ngay rancé pour dem douche. mus naa taxaw <laughs> fajar benn paa ñëw rek taxaw ñu ne ko kee fa nekk rek mu taxaw affaire bi ne kurr ma yàgg mu ne brrr ma xool ko mu xool ma ma sëgg ma ne ko c'est humain. nga ne ko. c'est humain quoi. c'est humain. <laughs> waaw kaso neexul nag kaso dafa métti. yàlla ci yàlla musal donc damay changer choqué pour éduquer ñëw def ko toucher pour éduquer. toucher pour éduquer maintenant moi je pense que euh, nit ñi ñu bëri dañ naan am nga xam-xam. Mhm. parce que loo wax wax li téere mhm. pour nga wax ko foog nga jàng man jàng naa alxuraan mhm. li ngay wax alxuraan bu set wecc la mhm. mais aujourd'hui moi je pense que war nga am benn mission mission boo xamante ni muy góor di jigéen di mag di ndaw ku ci nekk daf ci gis boppam tey sa mission lan la c'est-à-dire conscientiser les jeunes ci yenn yenn yenn fait divers yi nga xam ñu ngi leen ci dégg ci yenn pratique yu bon yi nga xam ñu ngi leen ci dégg lan moo tax doo doo conscientiser la moo tax doo sensibiliser ah non ça ku nekk ak de man am na benn xarit boo xam ne bi ma ko conseillé ba pare dañoo ànd pharmacie ma jënd Protect jox ko na ko góor gu ñëw jëfandikoo. Ah, noonu laa ko mënoon a conseil c'est-à-dire man je comprends pas yow ban façon nit nga du caaxaan ne man du ma fen. ok ma ko yeddee ba pare dama jënd paquet capote jox ko na ko am tegal sa bopp laal. l'idée c'était waaw l'idée bi mooy comme mënut a bàyyi dëbbante bi mais na protéger wu dëbbante par fur et à mesure bu ma miinee. ñuy dem di ñëw dina dem ba seexlu ko quoi nit doo ñëw rek soppi ko tey surtout koo jurul yilifoo ko. d'accord li ñuy wax ci lu baax yëpp bu ko ñëpp déggoon baari du ñu jarale sàngara. jigéen du fi am kart cagatu. mais lan mooy rôlu lislaam ak islamologue bi bu nit ki nekkee ci njàll. mais foofu c'était pas pour tonnaan ko safara nga jëm yàqu nga xalaku nga safara alalu yàlla la ku torox yàllaa ko xam man dama la fay fekk mën naa la wutal sa client maa ngi yow ndànk ndànk ndànk ndànk ba da ngay changer parce que am na benn jigéen. Mhm. dama ko gis mu neex ma ma jëflanteeg moom. nga nopp ko. noppaan noppaan man nopp ma. ok ma du nopp ba pare bëgguma nopp man ma sa nopp ma ko. ci Amath. naa ko sëy du bu ma nopp naa def suma wareef nga def sa wareef. rek jeex na sëy contrat la quoi. non bi nga ci duggee yàggul madame maa la si jiitu. gan nga ci kër gi <laughs> mais li ma foofu dafa am solo mooy nopp du sëy. tey boo nobee góor. bay bugg a dee nga sëy moom fekk fenkat la danga koy jéppi fekk mënul boppam fekk amul sutura quoi. lu ngeen fanaanee mu yendu. cest loo yaakaar ci moom boo duggee. gisoo ko d'accord mais bu fekkee góor gi dafa nekk réel gentleman. Mm-hmm. dëkkal la dëkkoo la di la rëkk-rëkk yu baax am yërmande am sutura da koy bëgg da koy miin da nga koy yërëm mais da koy tàmm. su boobaa nag nobel ñëw bu nobel ñëwee day neex da nga koy fonk. jokkoo jokkoo mais góor kese rek abiyaasu góor nii. très bien alors foofu waxee ko euh, ñu ñëw Kébé. maa ngi fi ma toog ni ñu ñëw ci suñ quatrième et dernière chanson préférée. Mhm. mooy euh, Pape Diouf fi mu woy yaay. yaayaw. Uh-huh. boobu neex na ma.